waaw mbokki téléspectateur de Casa TV internet yi ñu ngi di nuyu di ziar bu ngeen un nag na ñu duñ ko xam à travers émission bi dinañ ko découvrir ñu bàyyi rek présenté wu ça va. bonjour <laughs> ça va très bien euh, je suis par contre je je vis en Suisse.

ndax mën nañu xam jaar-jaaru Marie Rose jàng na école wala dafa bokk ci génération boo xam ne dañ ne jigéen warul dugg école ak yooyu jamono yooyu noonu ndax mën nga ñëw wax tuuti sa enfance sa jaar-jaar. si Marie Rose Sané jàng na jàng na école euh, d'ailleurs euh, école primaire fii laa ko defee à Fignane et puis euh, après j'ai été à Ziguinchor lycée Djignabo. amna naa sama bac mais mais en Suisse plutôt laa bac après ben, j'ai dû arrêter pour euh, pour faire euh, une formation d'infirmière. Euh, jàngee fait ba de première et tout ça après de me continuer sama en Suisse parce que arrivé là-bas il fallait quand même am un certain niveau pour me donner une formation donc fa j'ai defee ça me, bac. Ya. Eh, donc mën nañ ne ni Marie Louise jàng moo ko fi jëlee yóbbu ko Suisse non jàng jëleewu ma fi yóbbu ma Suisse mais euh, voilà euh, dafa dama amoon ay xarit yoo xam ne sama papa dafa nekkoon ci campement bi tout ça mhm. et par le biais de ces gens là j'ai dû partir ok mm. lan moo la motivé woon pour nga dem Suisse lan moo la gën a motivé man dama yàgg depuis ba nekk xale. Mhm. dama yàgg ne sam man bëgguma nekk Sénégal dama bëgg nekk Europe <laughs> tu vois alors juste pour euh, benn anecdote euh, ba nekk xale dañ daan dem église euh, Diourbel. donc à Diourbel ci biir église bi je ne sais pas pourquoi d' ailleurs maa ngi posé wu question bi à chaque fois ba léegi nii dafa am benn côté boo xam ne tubaab yi foofu la ñuy toog. Mhm. am benn côté boo xam ne nit ñu ñuul ñi fa la ñuy toog ci biir église bi. ok du coup bu ma àndee sama waa kër bu ñu eggee ci biir église bi damay bàyyi loxo sama papa ne nekk <laughs> yéen ay nit yu ñuul ngeen. yow nga rocceeku ndànk man ma dem toog ci diggu tubaab yi tubaab yi dañ ma daan xajal sax place finalement. ok <laughs> donc manam lolu sa rêve la won sa sa bëgg-bëgg la won dafa doonoon li nga xamni dang ko gëm. Mhm. ba tey dañuy desandi ci enfance Marie Louise. Marie mhm. Louise bo bu doon. Marie Rose du moins bu doon wax jaar-jaaram. elle était têtue elle était cool nan la melone dal bëgg nañ xam tuuti enfance am ndax dafa lej doon wala lan. bon je, <laughs> je pense que. bu ma tuulee léegi léegi la en fait léegi laa léegi laa tuul mais sama enfance dama dama lëjoon torop sax dama dama lëjoon torop torop sax. donc nga dem Suisse poursuivre say études. ba am diplôme infirmière comme ni nga ko waxee. Euh, yaa ngi ci ba léegi wala. alors euh, entre temps arrêté woon naa def euh, hôtesse de l'air. def ko une année après ma arrêté waat ñëwaat defaat infirmière mais instant yi nii euh, damay liggéey comme assistant dans salle d'opération. ok liggéeyatuma léegi euh, kii euh, assistante la mhm. ñu ñëw nag léegi ci domaine artiste bi. Mhm. nga tuddee sa boppu Isis Kuito. Mhm. d'abord pourquoi Isis Kuito Et Isis Kuito fallait la carrière d'artiste d'accord pourquoi Isis man suis passionné euh, mythologie égyptienne Je suis tout la sama pour Cléopâtre après je suis si tuddee sama pour Isis donc Isis euh, je pense que c'est une déesse euh, égyptienne. Mhm. <laughs>

dafa mel ni ISIS bi moo xaw a yàgg mais ngénte war nañ ko def ko kuyito. def ko kuyito mais c' bien c' bien parce que Casamance la fii laa dëkk et tout pense que balaa may dem di jëli feneen war naa jël fi nga xam ne foofu laa dëkk et puis ok ma gis tamit ci sa carrière de d' artiste. Mm. bokkoon nga ci benn groupe choral. jóge fa bokk ci groupe Ousa Diallo. Mm-hmm. est-ce que mën nga ñëwaat ci jaar-jaar yooyu noonu aventure yooyu. waaw waaw xam nga rek en tant que euh, chrétienne je pense que euh, jeune yépp dañuy jaar ci tooxaat euh, pour pour nekkee chrétienne dem ba da ngay commencé dem église rek ñu dugal la ci chorale bi et puis même duñ la ci dugal sax yaa ngi ci dugal sa bopp parce que ñeppay dem.

bi mu ñëwee Ziguinchor euh, demoon na et tout euh, daw pour wéy mais dama demoon bu fekk pour finalement nag mu jóg dem yéeg ci pëñoor bi tamit wéy mm-hmm. et par chance nag euh, man man la choisir foofu man kese donc xaw ma nag ndax leen daa toon wala <laughs>

wala xawoon na metti sa bor parce que nouvelle nga ci ci milieu boobu non, sow biis beeg yoy est-ce que mën nga ñewat ci tuuti. Eh, si c'est aventure du du bien la woon et tout ça parce que père père euh nit ku bax ni ngi noonu ah. hmm. nit nit ku bax vraiment xel bu rafet et tout et puis euh, vraiment bëggoon na ma torop torop torop. Hmm. c'était pas du tout loo xam ne dafa metti woon. Mais au final, moi, j'ai j'ai arrêté mais pour des raisons euh, personnelles. ok léegi ñu bëggoon xam rek euh, Isis. Mm-hmm. ndax yor na album wala ay single la yor. Mm-hmm. fan la débuté ak ban mooy premier morceau bu mu njëkk moomal boppam bi muy wane ni léegi nag dugg na ci cour des grands. Mm-hmm. ndax ba mën xam en fait musique si, si. En fait, euh, janvier passé, dama en vacances On naa sama benn xarit studio et comme je voulais euh, j'ai toujours voulu génne dernières affaires et tout ça mais temps de permettre ma ko alors bi ma j'ai eu du temps euh, quelques jours je suis allée à l'aéroport, directement samay valise du studio pour venir kaay ñu à donc euh, improviser

j'étais là, euh, mais je sais je suis pas une chanteuse, je artiste, euh, hmm. ñaari single yooyu laa génnee donc euh, non non non non non euh, mais dafa ma motivé dem naa yéeg naa naa ñëpp tàcc nañ ma. Hmm. j'étais courage ma gën a ñeme affaire bi aussi. Hmm. am nee nga génnee nga ñaari single benn bi sa papa nga ci wéy. ndax nga amoon rapprochement bu am doole comme jigéen ñi xam nga parce que dañuy faral di naan jigéen mooy xaritu papaam ndax rapprochement boobu moo waraloon nga wéy ko pour delloo ko njukkal si sam papa euh, man sam papa sama xarit la woon sama lépp la woon sama confident sama xarit sama sama lépp euh, dafa dund loo xam ne képp euh, doom bu gis waajuram dund loolu dalay marqué à vie mhm. donc dafa am lu mu dund loo xam ne lu metti metti metti lu ma traumatisé te lu may traumatisé ba faw la tamit et puis euh, bu ma ko xooloon nii dama ko daan yërëm trop dama daan yërëm j'avais trop pitié de de lui euh, un homme bon nit ku baax nit ku am xol bu rafet nit ku yéene ñëpp jàmm mhm. donc euh, nit kooku boo demee ba gis ni nit ñaa ngi koy xeex mais ouvertement sans gêne et grat gratuitement quoi mm. sans raison. Mm. Euh, nga nekk doom euh, luy metti si xol la te loo xam ne la doo ko mës de me mm. te dama dama vivre loolu sama sama waa ça mes frères et sœurs ñëpp tout, tout un chacun l'a l'a vécu à sa manière. Hein, parce que sensibilité bi bokkul peut-être. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis très euh, rancunière, mais rancunière dans le sens euh, où je vais me battre dans le mm-hmm. sens positif. Je ne vais pas aller tuer quelqu'un. Mm-hmm. Mais euh, d'une pour def donc j'aime bien genre défi nit ku baax la mm-hmm. deuxième single ni Mm-hmm. tu l'as vécu wala da nga am ku proche koo xam ne vivre na loolu affaire yóbbu ko nan la demee daal ba mu jox la inspiration ni yow da ngay wéy loolu pour dénoncer ko. Euh, waa Casamance nga ne ça. <laughs> waaw mais waa Casamance la mais. en fait sorcellerie. Uh-huh. Euh, am na fépp. Même petit tout va Donc en Suisse, euh, euh, ils ont brûlé les sorcières hein, mm -hmm. à une époque là, mhm. la colonie sorcière, il faut. Mhm. Donc euh, en Casamance, on en parle trop, il y en a trop, il y en a partout. Au Sénégal, il y en a partout, partout, partout. Da ngay gis nit euh, ñëw ni dara jotu ko ñëw ñu ne dee na wala euh, diw dee na lii ak lii wala diw feebar na mais dem na hôpital ba sonn kenn gisul feebaram kenn xamul kenn xaw ma lan ak lan. Mhm. Et puis des trucs qui sont vraiment bizarres et mystiques, tu vois et euh, Côte d'Ivoire aussi gis affaire yi foofu gis ay nit di avouer def bon d'Ivoire parce <laughs> donc euh, c'était chaud c'était très très chaud je me suis fait taper sur les doigts et mais si c'était à recommencer je le refais mais volontiers parce que loolu mooy tax dëkk avancé aussi. Mm-hmm. di dénoncer réalité yi ci nekk. vivre ma ko nag parce que man mii si sama bopp euh, voilà. <laughs> da nga blindé wu quoi. <laughs> non gënuñu maa gis lu sori moo <laughs> léegi en part bi nga ko génnee jot nga ci ay écho. si ndax euh, écho yi ay day gars yi dañu la doon dénoncé ni li nga wax baaxul wala say mbokk la wala. waa dëkk bi la ndax jot nga ci ay menaces ou du genre maanaam lan lan moo tax nga jot ay échos yi nga xam ne ay échos yu négatif la mu metti la. daf ma metti daf ma metti parce que xam nga léegi réseaux sociaux yi moom dara mënul làkkatu hmm. alors euh, Facebook bi y avait beaucoup de jeunes d'Afignane sama dëkk. ñi nga xam ne dañ doon jël son bi di ko partagé après di def ay commentaires yoo xam ne euh, c'était déplacé quoi <coughs> et euh, man je j'aime pas l'hypocrisie mm-hmm. tu vois nit da ngay wax loo xam ne mooy dëgg et puis boo tëddee nelaw parce que la conscience mooy meilleur juge nit ki nest mm-hmm. alors euh, dugg naa pendant deux mois maa ngi gis seeni commentaires maa ngi gis ay ay ay ay mots yu déplacé tu vois, j'ai pas réagi, mais au moment, tu vois, je reste un être humain et puis avec un cœur et puis une sensibilité, moi, comme les, voilà. Et j'ai dû réagir euh, très très fort. Hein. bon moi les mots bon voilà dafa dafa yàq deru sous suñu dëkk. Mm-hmm. voilà léegi waa yeneen village yi lan la ñuy xoolee Afiña ñu ne mais yeneen village a am nañu seen i dëmm aussi. Ah, man du ma woy jàkkaard du ma woy euh, tànduuf du ma woy. Euh, tooboo du ma woy Binjoola du ma mm. woy feneen mm. li nekk sama dëkk laay woy et puis je me dis euh, je dis mais tant pis pour les les gens qui sont pas contents quoi et puis bon man bu ma nekkul dëmm ku woy dëmm sama yoon nekk si je vais pas me battre pour ça ou bien. Mm-hmm. ok léegi nag moom dañuy xuus rek ci ndey mbili gi li ñu indi fii sax li tax ñu ñëw tey seet si la mm-hmm. mooy euh, li ngay préparer yàgg artiste bu mag bobu di Big Mo ñu bëgg xam rek rencontre ak Big Mo nga nekk Suisse mu nekk Sénégal mhm. nan la ñëwé approche bobu donc euh, Big Mo dama dama déggoon dañ ma envoyé woon son déjà euh, un jour fekk maa ngi wàcc liggéey. mu jël sama téléphone xool ni gis ni envoyé ma son xaw ma nag kan moom ma ko envoyé je me rappelle plus ma teg son bi ci sama oto mu commencé di fecc pour te dire que dama fecc depuis hôpital bu Kër Ka <laughs> bref léegi un ma woo sama benn frère bu nekk foofu bu Njoolal ñoom ñoo dëkk xamante nañu et moo woo ko di wax ak moom rek nee ko benn son et tout nii la mu ne ma fii la nekkoon léegi xam naa ko fii lay nekk tout le temps ñooy naan attaaya man kat kooku laa bëgg a xam suñu xamante nii la ñëwee après mu ñëw foofu présenté ma ko et tout ça ma ne kat eh, bu def benn featuring moom tamit tu vois d' accord et tout affaire bu yomb c' était ça s' est donc maanaam li muy wéy moo la neex nga déglu ko mu neex la trop nga sàkkoon featuring ak moom comme ni nga ko waxee xamante bi gaaw na featuring bi yomb na lu waral nag ngeen choisir bienvenue en Casamance sa choix la choix am la walla dafa am ay conseils yu nekk ci ginnaaw yi leen ne lii ngeen war a wéy

jaayante ku nekk lu nekk ci dëkkam et tout je pense que ça c'est en fait c'est ça s'est passé comme ça léegi mu changé waat yëpp bindaat lépp defaraat lépp jox ma mm-hmm. donc son bi ça parle de bienvenue en Casamance mais kon ku nekk dafa représenté dafa am lu mu représenté ci biir son bi ku nekk li mu représenté ci biir son bi mooy euh, même même chose là hein. donc ku nekk da ngay wax li nga xam ne moo nekk Casamance mooy euh, euh, enfin wax peut-être bon euh, beauté wu Casamance. <laughs> non mais beauté loolu kay. <laughs> voilà. Mhm. Euh, loo loolu lañ ci wax hein, voilà loolu la wax loolu laa wax. le 28 bi single bi wara a mhm. séance d'écoute bi wara am samedi bi à mhm. partir de 16 h fête et Bignona. pourquoi le choix de Bignona. Ben, c'est vite vu hein, parce que Bignona comme man ak ñaam laa dëkk c'est un village dafa defe ne Bignona mooy ville bi donc euh, il a préféré mu dem que Bignona bañ ko def sama village tout simplement. bi ngeen di bi ngeen di def single boobu ban sentiment ngeen amoon ci ban sentiment de fierté wala ci woy Casamance étant donné que Casamance mën nañ ne nit ñi dañ koo jàpp ni. boo déggee Casamance rek dégg guerre boo déggee Casamance dégg rayante boo déggee Casamance dégg comme ni nga ko waxee sorcellerie ak yooyu mm-hmm. yéen ngeen ñëw génnee son wan beneen facette Casamance mm-hmm. notre visage de la Casamance ban fierté nga ci am. xam nga nit ki même Casamance lu ñuy wax lu négatif ci moom yëpp mm-hmm. ay guerre. ay sorcellerie mais loolu am na fépp déjà nit ki même bu dee sa dëkk baaxul sax mais da ngay fier tout le temps si sa dëkk te man pour man Casamance moo gën dëkk yëpp bu ma taxawee di woy Casamance fierté la boo xam ne la mënu ma la mënu ma la wax lan mooy génn ci man mais fierté la parce que déjà nga génn génn dem ay Europe euh, ñu ne la fan nga jógee nga ne Sénégal ki ngay wax Sénégal Sénégal wax Casamance et tout ça wax Casamance donc Casamance ci Sénégal. Mhm. comprendre mhm. Casamance Sénégal dem ci Sénégal Casamance fierté fi ñun ndax destination Casamance bi pas à travers sa musique mais à travers suis vie quotidienne ndax top nit ñi foofu fi nga nekk Suisse mhm. di fexe nu ñu ñëwee découvrir Casamance mhm. wala ndax yow mës nga jële fee ay gan yu bari indi leen pour ñu mhm. découvrir Casamance xam ni Casamance am na beneen facette bu dàq fa euh, étiquette biñ koy koreel ndax yaa ngi participer ci loolu tamit. si maa ngi participer ci benn euh, à manière ça veut dire que lu may toog di wax ak nit ñi di wax si sama dëkk. damay wax li nekk sama dëkk voilà wax Casamance euh, fa ma fa juddoo fa ma nekk wax li fa nekk lu rafet lu baax li fa nekk yëpp jox envie nit ñi ñu ñëw découvrir parce que Casamance dafa rafet euh, lépp loo image boo wonee rek nit ñi dañuy ne waaw image boo wonee ñu ne la waaw parce que donc euh, voilà de ce côté-là, participer ay ay mm. eh, wala. <laughs> ndax ay projet pour la Casamance wala euh, projet euh, projet pour la wala je euh, projet am projet tu vois parce que je suis plus dans. <clears throat> social ci côté xale yi donc, on a fait une barre ici à Ziguinchor et tout, euh, j'en ai à Dakar. Mais sinon, bah, projet euh, pour, euh, pour, pour, Affinia mon Casamance, non. Je, je pense que je me concentrer aussi à l'état et tout ça. Donc, tu es pour ou contre euh, Non, je suis, je suis pour, bien sûr. Enfin, c'est quoi le truc pour ou contre <laughs> talibé yi maanaam tu es pour ou contre. ah d'accord pour les talibés ou ouais, contre les talibés. Ouais. Bah, ça dépend ça dépend euh, je suis contre que ñuy jël xale di ko yelwaanoo euh, di ko yóbbu ci mbedd bi muy yelwaan di matin au soir euh, te doo xam ban heure lay jàng je suis contre ñuy ne xale da nga war a dem booy ñëw indaale temps je suis contre xale euh, nar a nekk xale. Euh, nar a mel comme moroomam comme samay doom man xale yi man nar mel noonu te meluñu non. j'ai mal au cœur buma doxé doxee ci mbedd gis xale talibé xol ci ay bëtam ma gis ni ki du bëtu xale parce que xale bi day nek mom kessé day il se bat pour pour vivre tu vois c'est devenu un adulte donc euh, du xale alors euh, je suis pour ci côté boobu je suis pour que xale yi c'est pour que xale yi jàng euh, moo tax mu jëloon daara à Ziguinchor ak Kande Daya di leen jox seen lekk euh, ndekki añ ak reer pour xale yi bañ a génn dem di yelwaane ci mbedd mi. maanaam da jël benn daara doon seen marraine quoi. voilà ok donc xale dama ko def signé contrat ak seen. ak seen maara maara mhm. euh, pendant quatre à cinq mois après bah, découvrir que malgré que c'est euh, une mu par mois et tout ngi continuer di et j'étais tellement déçue que bi ma ko première fois dama ne non non euh, mën erreur il faut que ñu ba ci donc après ba eu une confirmation parce que def nañu une investigation et tout et j'ai dû arrêter malheureusement. Mm-hmm. donc je euh, moo la tax arrêté mm-hmm. ndax gisoo ni arrêté d'une part mm-hmm. parce que dañ mën nañ ne ñëpp yemuñu pourquoi géemoo eu un nouveau départ wala nga jéem a eu mesures? mesure nga koy sanctionné wala nga koy ngay waxtaane ak moom mhm. ba mu génnee xelam ci delloo xale yi ci mbedd mi mhm. wala da nga préféré rek ni def na erreur mhm. mu defaat ko da nga préféré couper le fil si si parce que première fois bi euh, waxtaan waxtaan nañu ak moom tu vois association bi dem nañu man euh, maa ñëwoon ak ñoom ci affaire vidéo et tout ça wax nañu on a parlé

ak fulla ak fayda et tout ça moo tax man ma jàpp si donc euh, c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de bien en tout cas ndaanaan la. sa kaddu bu mujj looy tàggatoo internetu Casa TV bi ñoo neen. ben di leen remercier rek di leen remercier euh, j'espère que j'espère tout simplement que je vous ai pas ennuyé <laughs> non j'espère pas bon en tout cas merci euh, de nous avoir suivis de m'avoir suivi surtout et euh, jéggalu ah si jamais euh, am na ben benn parole bu échapper parce que nit que c'est là des fois il m'arrive de trop parler voilà merci beaucoup. ok merci mbokk internet Casa TV Bignona li moo nekkoon sen émission Casa la dëkk fii ci Casa TV Bignona di len jox dig dajé ba benen émission inshallah